Mame Boye oui euh, vous, êtes de la même génération que ces gens-là euh, ñenn ñi seen mag ngeen est-ce que vous trouvez normal euh, j'ai vu que le juge a dit non à la liberté provisoire déposée par Bassirou Diomaye euh, est-ce que vous trouvez normal que pour des délits d'opinion euh, que pour des posts Facebook que des hommes politiques soient maintenus euh, en prison de manière indéterminée et que bu ñu dugalee liberté provisoire sax dawuñu fii la ñu nekk am nañ seen ñu ñu ñu leen ko est-ce que vous trouvez normal que des jeunes pour avoir participé à des manifestations euh, je ne légitime pas les cassants euh, mais pour avoir exercé des droits politiques ñu jël leen sànni leen nguufaan leen sànni leen ci ci prison les processus voilà. Ah. de conflit politique nous ont amené à un conflit d'envergure que le Sénégal n'a jamais connu voilà waaw maintenant de continuer dans cette logique. donc il faut il faut le sacrifier. non je dis ou on choisit de continuer dans cette logique ou on dit puisque jàmm lañ bëgg moom la suñu kilifa diine yi di woote moom la waajur yi di woote moom la ñëpp di woote moom la ndaw si réew mi soxla ni ñu jéem a xool si on peut discuter dans le cadre d'un dialogue ñu tàppee xool yi je ne me prononcerai jamais sur des décisions de justice c'est pas mon boulot. Est-ce que vous comprenez ah, Vous êtes un homme politique. Non, oui, mais à ce moment-là, je te proposerai une réforme de la justice. Je parle pas de, réforme... réforme. Ah si, je ne pas une réforme du, au Conseil de la magistrature. Je veux qu'on réforme la justice, moi. On la réforme. xam nga lan moo xam nga lan xam nga la justice telle qu'elle est vécue par le peuple d'accord c'est une justice très difficile et elle, parfois elle est difficile à être performante parce qu'elle est xam nga tey bu ñu demoon yow sa may mun a bi ñu bindee ko Y au lieu de i mais boo ko waroon changer tribunal da ngay sonn mm-hmm. loolu la doomu sénégalais yi di jànkonteel est-ce que yaa ngi comprendre est-ce que xam nga dafa am ay doomu sénégalais yu dem ba baccalauréat du ñu am kayit ñu war a def ay audience foraine pour ñu am ay kayit est-ce que tu est-ce que yaa ngi comprendre les besoins et vous voulez me parler de deux ou trois hommes non, politiques non c'est pas deux mais mille c'est plus de mille cas mais, eh, eh, eh, mais la le stock le stock Qu'est-ce qu'on fait des détentions préventives qui n'ont rien à voir avec les politiques d'ailleurs mais les longues détentions préventives où après on te dit tu n'as rien fait am na. mais ça c'est pourquoi je dis réformons la justice de notre pays mettons-les dans les conditions de performance il est possible qu'on ait une une justice indépendante. waaw mais ay post Facebook ñu téye nit ñi en prison comme ça. quand le ministre de la justice lui-même. waaw fait un diagnostic parce que le week-end dernier il était avec l'union des magistrats du Sénégal le président de l'UMS pose un diagnostic du dëgg il sait qu'il y a un mal la perception est importante n'est-ce pas le ministre de la justice donne les éléments du diagnostic waaw réfléchissons à une réforme de la justice euh, nga ne nga ne tout ça ne règle pas réew mi dañu war a happy on a on a été dans une période très traumatisante très traumatisante suñu ay doom lañ doon rey ci mbedd yi te donc loolu mën a dàq